waaw bon gars yi affaire bi noonu bon géej maladie bi bon ay picc la lay defa ah. donc dafay bañ jël kanamam lépp quoi donc picc lay def mool yëpp la dal bari nañu produit bi nag il pare yi ñoom ñu ci bari nee nañ benn bato la bu nekk fii gi di am na muy déverse donc mool la dal nii ay picc lay def ci kanam yi gis ngeen ak seen tuñ yeeg yëpp boo mën nañu bëgguma jël kanam bi moo tax ñu def ko nii quoi ñu ngi caare sur mer waaw gis ngeen kii moom it loxo bi ni mu mel waaw loxo bi gis ngeen lépp ay picc la donc produit la donc bëgguma jël seen kanam yi na ah, euh, euh, xam nga rek euh, àdduna moom xaw a doy waar donc du ma jël seen kanam yi et puis ñoom ni ñu ko expliqué dafa egg ba nga xam ne si seen partie intime yi quoi ba ci partie intime yi donc mais du mën a wax rek mooy IPC bu Thiaroye sur Mer vraiment mu ngi taxaw gendarmerie aussi ñu ngi ñëw pour xool situation bi jéem a euh, remonter situation yi remonter information bi au au niveau gars xool réellement lan la quoi donc ñu ngi nii daal di poste de santé bu diarekh sur waaw kii tam aussi kaneen la donc ñun euh, dañuy jël ni image duñ jël benn kanam gis ngeen kii aussi loo xam ne la donc ñoom ñëpp ay mool la ay pêcheurs la ci géej gi la leen di dalee donc bi ñu teeree gis nga seen yaram dafay tàng. ñëpp ñu ngi fi nag euh, médecins yi ñëpp fii yëpp dafa fees dell ak ay nit waaw euh, ñu ngi info euh, information yi ñu koy jàllale pour ñëpp jot ko daal wax dëgg yàlla métti na mais saa ay maçon ñoom ñëpp bu ñu leen waxoon li li mu demee ñu ngi nii tëdd tëdd tëdd gis ngeen lal yi foo leen gis am na ko tëdd bu baaxee xale bu ndaw bi sa def ko daal donc bu ma jël kanam yi bu hmm? baaxee ñoom ñëpp la dal ñu ngi noonu.

di verser benn liquide boo xamante ni ñoom ñëpp bu xoolee affaire bi ñu bisee daf leen dal donc bari na am na yoo xam mënuñu ko wane il paraît nee nañ sax ba seen partie intime yi donc nag kooku médecine la ñoo ci mën dara IPC bi bi fi nekk di mbay vraiment moom euh, taxaw engagé woo ma téléphone aussi ñu déggante téléphone wax dëgg yàlla mu souhaité woon ma ñëw ma ñëw naa fi avant timis mais ma gisee affaire bi moom mu ngi noonu mais na i pare nag euh, gëmuñu ne day wàll daal waaw parce que ñi mu dal. ñëpp ñu ñu nekkal dalu leen ñu demul géej ñuy dem géej daal kase kase la fi daal dalul gis ñu aussi jigéen bu mu dal donc ñu yaakaar ne daal euh, du du wàlle daal waaw bon nag yal na ci yàlla def jàmm. jaajëf ah. voilà voilà tam loolu am na ci solo parce que jën yi gars yi di lekk. waaw. donc mi ngi noonu gi nga Mor Mbaye ngi noonu di président bi moom sax bu champion carte dina am solo parce que jën yi war a lekk aussi am na ci bi daf ñu jaal parce que affaire bi daal day gën a day gën a law fi mu ne nii pour l'instant nii daal ñun doj ñu suñu bopp waaw affaire bu jege moo lii rek la daal bon ñun suñu suñu l'instant faute de chimique lañ koy teg moom lay joxe peut ñoom du kon li gars dama demee am na ñu ne am na bato bu fa nekk di am waaw ah, parce que am ak ak boo xamante ni mooy tibb suuf si si Ponta di di daw di ñëw ñun daal suñu xalaat ñun suñu gis-gis parce que bato boo ko jubee danay wax andu leen andu leen waaw andu leen li mu mënta ñun xamuñu mu doon waaw parce que tamit euh, affaire bi daal na waar mu ngi nii daal kenn ñoo waaw mu ngi noonu yàlla lu ci mën a am daal yàlla na ko yàlla saafara donc aussi ñu xamal leen ne brigade bu Thiaroye sur Mer mi ngi ñëw dëgg yàlla ñoom it euh, bi ñu ngi boobu léegi toogu ñu ñu ngi ma oo ne ma ñu ngi ñu ngi dépassé ñëw ci milieu d'ailleurs ñooy ñëw nii sax dafa mel ni suma juuma waaw non du ñoom mais xam naa léegi incha allah ñu egsi gars yi bon ñu ngi leen di bàyyeeg loolu jaajëf noonu laa la problème bi demee après di leen tegal vidéo yi tegal leen photo yi ngeen gis jaajëf